seetaan ngeen vidéo bu baax dama bëgg ngeen arrière ko ngeen seetaan ko bu baax après sooy bu télécom bi Waly Seck wàccee xam nga sooy bu téléphone maa dugal télé euh, maa dugal vidéo ba àdduna bi jot ko kii nii sori bala miy way moom ak jabaram danoo yëg ci soirée Waly Ballago Seck jabar ji di ko baatare ak suyu ak ak ak sori ba xaalisu fals lañ ko doon jox xaalisu fals lan doon jox Waly Waly da ko làmb xam ne xaalis bi baaxul mu delloowaat ko jabar ji di leen ko maye ndànk-ndànk mayu nan ji Waly Seck Europe la màggee daanaka Europe la juddoo fa la defee lépp xam Europe xam CFA xaalis jóbbu ko yéen pourquoi da ngeen a war a ñëw ci wàll yoroo loo maye toogal mu way la mais bu ko jéem a dugal di ko jox ay xaalis fals sori ba yow boo yoroon xaalis defar say clip bu mën a am qualité bu baax defar fi nga dëkk dimbali say yow sa wàllu musique nga dox ci tuuti mais ñëw ci Wally Ballago Seck di ko suruxal di ko jox xaalis fals bu bare ni Wally doful da koo xam moo tax mu delloo leen ko seetaan leen vidéo bi bu baax Wally naanite la Wally ngeen bëgg dugal yéen di ko soroxal yoon yéen lu tax Sénégalais bon lu tax waykat yi soxor ñi bunta way xamuñu ne téye micro lu tax ñu kat seen dana nay yéen waali ngeen di kàmbal yéen bëgg koo daameel dinaa kat seen day yéen ñëpp ñi bëgg suruxal waali yëpp dinaa suruxal seen data day xoolal xam nga temps yi dama nekkoon sama yëfi bopp boo tax ngeen bëgg a yeb faramaarin bi ku ne di ko aju soo bu ñëw na di jéem a def yëfu dof yow nga ñëw di maye xaalisu fals fekk waale xamu ko xam ne lépp dalaa bàyyi ci biir yow ak sa jabar doo rus sax waale di la way ngay jëkkati xaalis ba di ko jox fals waale da koo làmb xam ne baaxul mu mayaat ko sa jabar ñëw ne la dolli ko seetaan leen vidéo bu baax sénégalais yi man maa ko génnee man Adama faramaarin bi kenn du ko saraxe doful xam na lépp sori ba yaay doxaan sa ndey sa kanam gi ngay mel ne jaaykatu ndaakaane doomu xaraam yow doo tekk ci musique mënoo way ba pare soxor nga iñaan doomu raam seetaan leen ko baax arrière ko ngeen seetaan bu baax